gannaaw ba ñu nekkee di waajal seen combat niki juróomi fan ci weeru mai atum 2024 Eumeu Sène bu Tay Shinga ak Sa Thiès mi rakk ci Balla Gaye 2 amal nañu ab face à bu neex niki dimanche bi ñu weesu moom njiital Tay Shinga gannaaw rek kon ba mu daal di dellu di waxaat yéene gi mu am ngir daal di daan kii di Sa comme na mu ko defee magam di Balla Gaye 2 terewul Eumeu Sène dafa yëkkati kàddu yoo xam ne ku ko dégg daf ko rafetlu moom Eumeu seen mu ne Sa suma rak la te day des itam di doon suma rakk même bu combat bi jeexee waxee eh, combat la boo xam ne wàllum fair play daf cee war am bu baax a baax ndax tollatuñ foo xam ne làmb dafa war doon doon na ndax kenn ku nekk si ñun yaay may sa morom xaalis kon itam faaw ñuy wone exemple bu rafet waaye ak luy mën a am nag bu mu tere Sa xam ne laal na laalaake ndax na ma defoon magam noonu laa koy def dinaa bëreeg moom dinaa ko duuma te dinaa ko daan yaakaar naa ne nag Sa bu déggee lii ma wax war na xam fan laa ko teg ndax gis na fi ma jaar ak magam fexe ba neexal làmb ji mbooleem loo xam ne amateur yeeg supporter yeeg promoteur bi ko tëgg mu ngi ciy xaar nañu ko wone na ñëw dëggal boppam ma ñëw dëggal sama bopp ñu jàkkaarloo bëre ma duma ko daan ko ñibbeek ndam li waaye gannaaw loolee yëpp itam day delluwaat di doon sama rakk ndax làmb dañu ci toll foo xam ne dañu war a njëkk a woote jàmm waaye wàllum fitna mosuma ci dox te man Eumeu seen duma ci mos a dox kon Sa Thiès làmb moo ñu boole waaye suñu làmb bu weesoo juróomi fan ci weeru mai ma daan day wéy di doon suma rak dara mënta ñaaw suma diggante ak moom